Mal. Mhm. mooy cas Sadio Mané. Mhm. Sadio Mané ku nga xam ne joueur yoo xam ne dafa bëgg di créer espace. Mhm. donc bu amul militaire yoo xam ne ñoom lay weccoonte ay bal pour créer ay affaire rek. je pense que duñ duñ ko mën a jëriñoo ni ñu war a jëriñoo. malheureusement nag comme c'est plus grand. moom tout temps gars moom la teg baaraamu tuuma. mais très sincèrement. Aliou Cissé préparé ko pour mu amal ñu njëriñ. tu as ah. da nga daanelee par wax Aliou Cissé mais père xam naa débat bi moom bu ñu ko posé wul tey yaakaar naa ne sénégalais du ñu ko baal. Hmm. mooy le débat euh, sur Aliou Cissé. Hmm. Aliou Cissé est-ce que parce que à chaque fois sénégalais Aliou Cissé la ñuy wax Aliou Cissé Aliou Cissé Aliou Cissé Aliou Cissé xamul dara Aliou Cissé moom moom dafa mel ni je sais pas est-ce que on lui fait un mauvais presse un mauvais procès wala lan moo xew exactement. Euh, per bëgg naa vraiment ñu waxtaan même bu dee du yàgg sax parce que am na lu bëri lu ñu war a wax ci match bi ak préparation match bi di ñëw mhm. loolu it nit ñi dañ koy xaar ci yow surtout contre cap euh, Sénégal cap mais Aliou Cissé Père euh, tamit yéen ñi nekk ci live bi profiter leen ci wax vraiment seen xalaat ci Aliou Cissé ma ma liiral leen ko en direct mhm. ay ca Père waaw Aliou Cissé c'est un long processus mhm. xam nga Sénégal da doon def bu njëkk bu ñu demee compétition bu ñu dellusee ñu gagné ñu ñu dàq ministre bi. Mhm. tas fédération bi. Mhm. dàq entraîneur bi. on s'est rendu compte que def nañ ko lu mat ñaar fukki at. Mhm. amul aboutissement. ñu def évaluation daal di ne léegi on va s'inscrire dans la durée parce que euh, li ñu jàpp mooy. am na ci entraîneur yu bëri par exemple Amara Traoré. bi muy def éliminatoire. dafa def éliminatoire bu baax a baax bu amoon Cameroun mu gagné ko. dem qualifié. nekk premier. dem bataa ñu gañe ko mu ñibbi si ñu dàq ko. xam nga kooku amul benn jàngat bu mu jàngat ci coupe d'Afrique bi mu demoon. commencé woon à zéro. teg ci Kasper Zak teg ci euh, euh, Giresse. Alain Giresse et cetera et cetera amul benn njariñ. ñu ne processus boobu ki koy mën a conduire day am bii profil na nekk sénégalais. nekk koo xam ni nit ñi am nañ yaakaar ci moom. Hmm. on s'est dit Aliou parce que non seulement euh, nekkoon na capitaine équipe nationale am na fa ko nit ñi teg li ñu koy baal am na ñoo xam ne duñ ko ko baal. donc ñu def loolu. bi ñu ko mhm. defee ba pare première année ba demandé wuñ ko woon dara lu dul qualification coupe d' mhm. beneen bi ñu ni ko beneen bi ñu ni ko qualification coupe d' afrique ak coupe du monde. Mhm. beneen bi ñu ni ko qualification ak finale. parce que boo demee finale finale moom ñaari équipe la. mu def qualifier coupe du dem finale coupe d' Afrique donc mënoo ko woon ñàkk reconduire je crois que aujourd'hui li ko nit ñi wax mooy dem jëli coupe bi ba pare qualifié coupe du monde xam nga nit ki mënoo ko sas ne ko lii laa lay def loo li nga ko doon def loo mu def ko mu def ko lu mucc ay nga yeewu suba dàq ko xam nga réaction wu Sénégal yi mooy yaakaar jee rëy gis nga gis nga euh, supporter tu es héros ou zéro mhm. c'est-à-dire yow boo daanee yow yaay yaay léppam. Mhm. buñ la daanee doo dara. Mhm. mais li ñu ba jàpp fi mu ne comme euh, Aliou dañ ko fixe objectif. Mhm. ñoo nga Coupe d'Afrique ba. bon an mal an euh, ñun ñëpp di sénégalais. bi ñuy bi ñu yeggee xamoon nañ ni de li ñuy commencé danañ am jafe-jafe. effectivement am na jafe-jafe parce que euh, am na sax ñu naan. kenn xamul équipe am. équipe am xam nañ ko yéen tamit. <laughs> waaw équipe équipe type bi équipe euh, Crépin Sadio Mané plus. Euh, Ismaïla Sarr c' était ça son équipe. Mhm. nañ waxante dëgg rek. Mhm. mais boo fekkente ne ñàkk nga sa ñaari éléments yi. Mhm. nooy def te yaa ngi war a dem Coupe d' Afrique. il faut nga continuer di xalaat. xalaat boobu nag laa ne ci biir xalaat bi dafay am beneen jafe-jafe bu ci feeñ. mooy ñoo am neuf joueurs yoo xam ne dañoo Covid di ñëw benn par benn. donc cette gestion là c' est une gestion extrêmement difficile. tey jii nii bu indiwul woon joueurs yooyu. yàlla tere tereti ko bés bu ci amee tolof tolof moom la ñuy wax dañ koy flinguer mhm. dañ ko naan Aliou Cissé la nangam nangam et cetera et cetera mhm. c'est-à-dire à un certain moment l'entraîneur doit être mhm. ba pare di jël recul bu ngeen fàttali ko Aimé Jacquet bi mu ne lu jël Cantona France gépp ko wër lu ne wax nañ ko ko mu ne man li laa gëm li laay def dem jëli coupe du monde ba même Scolari déjà ak Romario même Scolari Benzema voilà bi mu gagné ba pare bi mu ñibbisee mu ne léegi nag bàyyi naa ah. dafa dem coupe du monde ak li mu gëm on l'a lancé lu ne wax nañ ko. Hmm. mais mu dem gagné coupe coupe du moon bi mu ñibbisee gars yi di ko wax prolongement contrat mu leen bàyyi naa. Hmm. parce que je n'ai pas eu le soutien de mes wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla Aliou il a ça. Hmm. aujourd'hui euh, euh, li tax mu ne maa ngi déglu ñëpp. mooy xam na ni li koy xaar lu jafe la te lu metti la. man de li ma leen di yëgal mooy. saa bu ma ko soxlaa danaa ko woo su ma ko woowee dana mu wuyu. bu ne. Euh, dafa jàpp ma yónnee ko texto bu pare dana ma woo. Mhm. te loolu bu ko neexee bañ ko def xam nga nag Sénégalais yi xam nga lu ñuy fa lu ñuy mhm. fàtte. Mhm. entre conseil ak décision. décision conseil mooy man dama wax sama xalaat. dama la naan ah man de su ma sañoon. Euh, euh, kii. nga def lii Sarr. ma la Pape Boy Sarr. yaa su ma sañoon de moom vraiment moom mooy nekk milieu de terrain. bu ma sañoon Sadio da koy def lii da koy def lee mais ñun ñëpp buñ ko bokkee wax nag. dans l' de sa chambre bu demee mooy toog daal di décider. bu décider nag bul ne mukk du déglu. déglu na la. Mhm. waaye c'est lui le décideur final. Mhm. parce que moom la ñuy évaluer. Mhm. bu ñibbisee. Ah, tout le monde a entendu le ministre tout le monde a entendu tous les autres. dama jàpp ni fi mu ne jamono boobu du jamono bii. fi mu nekk li ñu war a def mooy lu ne xinte loo xam ni. nañu fexe ba dem jëli coupe bi. bu ñu paree. buñ ci jotee. soog a waxtaan. soog a waxtaan li ko Koli nee na na euh, en fait je pense que le coach mérite des encouragements. c'est un monsieur fort avec beaucoup de caractère qui a les mêmes objectifs que tous les Sénégalais léegi sur Aliou Cissé. no mais xam nga Vito bu ma la nee que père. de bu waxee ba pare li nga ciy bu autorisé xam nga genre mhm. père. Mhm. ñoo war di wax si football. c'est-à-dire. Mhm. moom da lay remontel li fi mm-hmm. xewoon. Mm-hmm. wax la ba fii nii fi ñu toll. Mm-hmm. c'est-à-dire du am lenn lu mu siy wax loo xam ne da koy dindi. dëgg la te football luñ ci mënti wax objectif la. ay football bu rafet ay xawma dugg na fii génn fii bu ñu paree après dañuy wax kan moo gagné. Nguuda Nguuda Gueye nee na père a totalement raison. non il a raison. c' dire foofu la sénégalais yi war a toll. ba pare Aliou Cissé c' est pas tey si suñu football. man bëggoon naa am tey limite c' dire. comme procès bi ngay wax nii. Mhm. dañ ko defal procès bu bon ah. moo tax booy fii koo laaj mu ne la Aliou Cissé xamul dara. Mhm. parce que ñiy toog si tele yi. des fois ñooy toog di wax ay affaires yoo xam ne peut-être euh, ça mérite réflexion. par rapport ak père lu muy wax. Mhm. man bëgg naa am limite yi Aliou Cissé am. Mhm, mhm. en tant que joueur. comme en tant qu'entraîneur. Ndeye Salka Ndeye Salka Fall mu ne Aliou Cissé moo war a dem ba jeex. <laughs> non day dem ba jeex. <laughs> ba pare te xam nga c'est-à-dire dafa nekk ñun suñu image. ñun par rapport aux Sénégalais ñun on est fiers de voir Aliou Cissé suñu banc de touche. avec tout ce qui s'est passé auparavant. c'est-à-dire loolu la ñun xam nañ ne que. Mhm. ak booy ah, mhm. groupe bii ñu am ni mhm. dañu am groupe boo xam ne ñun bu ñu tëddee dañuy nelaw. parce que xam nañ ne ngañ xam na li may wax. on est en contact. booy xam nañ ne tey bu jaree ñu bàyyi fa seen bakken pour amitié bi dinañ ko def. mais dañu dem ba gëmloo sénégal yi nekk ñun dañoo ñàkk jom. ñun dañu ñun duñu muyee la maye comme il faut. mais il faut qu'on arrête mhm. et que ñu nekk ci ginnaaw équipe bi parce que équipe bi ñun ñoo ko bokk mhm. ñun ñoo farak ñun ñoo nekk ñoo dëkk ak booy yi ñun mhm. ñoo kii te onde yooyu ñun dañ leen koy lancé am na joueurs yoo xam ne duñu liir sax presse parce que émotionnellement voilà mun na am ay impact mais tey ku jot sa waa kër ak tout di nga di nga ressentir émotion yi c'est-à-dire nañ nekk ci si si optique boobu ñu pousse équipe bi ñi war a ñaan ñaan continuer gëm ne ne que c'est le moment tout a fait léegi. voilà man loolu laa loolu laa gëm quoi. mais léegi fi nga wax loolu jar naa insister. li nga wax jar nañu insister. si si nañ ci insister. waaw parce que li lay ti wax c'est parce que image.